comme ni ñu ko waxee rek dañoo ñëw indi suñu contribution en tant que lutteur mais aussi en tant que citoyen parce que dëkk bi lañ dëkk comprendre nga. am na ñu bëri nag dañ doon bëgg ku nekk indi mais am nañu citoyen sénégalais yi boo xoolee par rapport ak seen message yëpp bëgg nañ gis mbëri loolu dafay wal ne ñun ci dëkk bi lañ dëkk am nañ considération bu ndaw moom ñu jox loolu dafa tax ñu waxtaan ak Gris Bordeaux moom mi nga xam ne mooy président lutteur en activité mu waxtaan mu mbër bu nekk mu woola am na ñoo xam ne def nañ seen contribution te ñëwuñu mais ñun ni bu ñu ñëwee taxaw dafa mel ni ñëpp ñëw nañu

ñu ngi ci lam ñu ngi ci xeex bi ànd ceeg le président te loolu ñëpp rafetlu nañ ko et puis di gën a rek ci mesure de prévention yi ñu joxe ñu bàyyi ci xel bu baax parce que dafa toll foo xam ne dañu am un adversaire commun adversaire bi nag dafa nekk covid 19 bi loolu nag pour ñu xeex ko il faut que ñëpp bokk ndey bokk baay mesure yu ñu tere ñu koy def yu ñu tere ñu bàyyi ko lu ñu ñu def ko tax ba mu ba menacé woo menacé sport ku nekk ku nekk sa liggéey muy ñun mbëri suñu liggéey muy làmb dafa xaw a menacé woo gis nga arrêté nañ ko mm. yéen aussi journalistes yi seen liggéey ralentir na kon nag ñëpp la concerné bu ñëpp concerné ñëpp kay kenn du des kuñ ci woo rek ñu ñëw ak ñu ñëwul rek ku ci woo rek am nga am nga yëg-yëg ne war nga cee bokk te tey ñëw nga kontaan nañ bu baax. waaw suñ contribution somme bu bari la boo xamante ni ku ci nekk rek ñun ñi nga xam ne ñooy lutteurs yi ku ci nekk rek giri wóor na la te ba nga la wooyee def nga affaire bi sa yëf jël nga montant bu am solo jox ko giri def na ko ay gel antiseptique ay kotol ay maraar ay saabu leneen bari na daal ñu ngi nii. te loolu rafetlu na ko sénégalais yi loolu lañ bëggoon am di jàmm yi loolu lañ bëggoon soppe yi ñu bëgg làmb lii lañ bëggoon mooy gis waa moom làmb yi taxaw waaw mu yéex parce que dafa nekk loo xam ne xam nga lépp mën naa neex a régler mais affaire de mbër giri fi mu toll ni day dajale ñu ñëpp mais ñu ñëpp ay adversaire day xaw a yéex tuuti xam nga déggante bi compréhension bi affaire yooyu mais bañ ne intérêt commun la après dajale nañu ñëpp ñëpp ànd ci ñu ñëw indi ko et puis ñu ngi ciy remercier les politiciens yi nga xam ne ñoo nekk Pikine